xam naa lim sànq seen alal aw nafsin wala bokkan aw nafsin wala bokkan aw mu ne wala tareef ko al imaamata nit yu jiite li aj ci ngir lot awi salaata wala ñu tere ko julli ci biro aati saaba mbori aw sabt xarasin wala jiitu woon ñàkkum njàpp mooy toj ga du mu daata woon kàbbar aw zikri yi wala mu fàttali koo ci biir julli bi fekk na ñeel ko istixlaaf ko wuutal mu wutal keneen moom imaam ji sopp nañ mu xëcc ci keneen jàpp ba kanam génn su xëccul keneen itam ñu ci des mën nañu julli par kenn kenn wala ñu damax kenn dañ kenn mu jiitu leen waaye mbiru koo in donte dafa amoon ci rukkoo bi it aw sujudin wala sujud maanaam imaam bi gannaaw bi mu bi nga xamee ne def na istixlaaf jóge ci rukkoo bi te yëgliwu ko wala mu jóge ci sujud bi te kàbbarum parce que ñoom ñooy xam ne dafa am lu ko tee mën a tee jiite wala lu ko tee mën a tee julli bu defee ñoom ñu daal di kàbbar ñoom ndax day bañ bu kàbbaree ñu topp ko da naka tey boo këppee sa jëm mu fàttali ko ne amul jàpp mu ne allahu akbar ñoom ñu daal ne allahu akbar ci roy ko topp ko wala seen julli yàq ko ndax fàttali ko na ne amatul njàpp wala am na loo xam ne yàq na julli bi wala nekkatul ilimaan bu fekkee ne dafa fekk muy rukkoo buy siggi dina allahu akbar ndax kon ñoom it dañu naan allahu akbar siggi fekk booba dañ koy roy kon seen julli yàqu tey daal dina leen moo téye ba kanam mbiru ko yéen aw sujjóotin wala tabtulu du yàqu nag in rafaxu ndem yëkkati nañu rek bi raf yi ci gërëb ci yëkkateem qablahu ci la jiitu maanaam bu fekkee ne dafa yëkkati noppi daal di xam ni nag ilimaan yëkkati yëkkatiwul maanaam seen bi lu moom du yàqu si biir nañ ci rukoo bi wala ci sujjóot bi ci bi ilimaan di yëkkati ko waxul kàbbarul balay def istixlaaf maanaam xam nañ ni rek ilimaan bi moom siggi na dem na mu daal di siggi moo xam nga koole wala sujjóot mu daal def istixlaaf wala mu dem ñu def ñëw ñu jiital keneen ñu jiital keneen wala ñu julli kenn ku ci nekk seen julli du yàqu kon wala hum ñeel na leen in lam istaxlif su fekkee ne moom ilimaan ji dafa istixlaaf ñu def istixlaaf ñu ñu dañ kenn rek wala achar donte ju ñoo ne la hum ñeel leen bulim ci saar ñu buñal ko xëy na dafa bori mu ne jàpp ne dana matal kabar yi charte yi tax mu mën a jox maanaam mën a génn si continuer julli gi te mu yàqu mu junj leen ñu leen ngeen xaar ko kon itam du waaw walaw lu mu ci waxoon ilaa xilaafin marsabiin istixlaafu laqra bi sopp nañ ba tey nga wuutal ki la gën a jege fekkee ne mat mën mat na ilimaan mën na jiite julli xam na àtte ji ba sopp nañ ba tey tarku kalaamin mu bañ a wax fii ko xaalis ci demin ku toj dafay julli ba mu yàgg njàppam yàqu mu bañ a wax bañ ne sama njàpp nangam wala dara wala julli bi wala def dara donte moom nekkatul si julli bi waaye sopp nañ mu bañ a wax jàpp ba kanam rek génn daal nañ ko sant wata axara dégg nga yéexat na mu tàmman mbir muy muy roy wala mu tàmman muy roy yi mu téye ba kon comme ma ko doon waxee rek di suturaal boobu ñu jàpp ne dafay bori ak lu mën a yàqu ci ñoom rek foofu ji waxtu muy génn kanam daal di taxaw fa ilimaan taxawoon ci sàkk mooy in aroba ndegam jegeñ na moom ki nga xam ne moom la ñu wutal moom la ñu moom la imaan bi xëcc wala moom la maam moom yi jeñ su fekkee ne jege na nga xam dégg ci ne comme su su fekkee ne ku sori la du dem waaw foofu mu nekk lay jiite su fekkee ne dem na du sori ba sart nañ si julli bàyyi jëf yu bari bu fekkee ne jéggi na jéego yu bari comme dafa sori muy dem ba muy àgg ca kii bi imaam bi day yàqu place bi imaam bi li ñuy wax individu si biir maanaam doonte sax dafa nekkoon di di jub wala muy sujet doonte moom la bu fekkee jegeñ na dana avancé waaye ni mu nekk rek lay avancé bu fekkee dafa sëgg day sëgg dox bu fekkee ni maanaam jege na si iliman taxaw ak fi mu nekk xëcc ko wala ñu jëñ ko mu war a dem place bu iliman nam ko fekkoon mu ne bu fekkee dafa jàpp daf koo jàpp ci moom noonu lay dem bu fekkee nekk si biir dana doy waar waaye moom lay dem mu ni wa in taqaddama dem jiitu na xayruhu ku dul moom it saxat te mu wér kii li maa ngi xëcc bu fekkee ne keneen daal gaaw na dal di dem wala keneen niveau la moom dal di jëñ keneen mu dem it toog mu bàyyi dana julli gi dana wér mu ñu wér la ci wa saxat mu ne وقال من تعلم إلى اتبع القناة أخفر قوله وأصله mu ne dafa mirale ci wér bi mu ne ka an istaxlafa naka doonte bu fekkonte ne dafay dafa wuutal moom imaam ji nga xam ne julleem yàqu na man lu julli maj mu ne dof wala koo xam ne imaamam wérul wala mu yaqtadu tere yu ñu bii ci moom maanaam ñu xam ne kii mu jiital dox la ñoom ñu daal di gaawantu julli kenn ku ne julli sa julli ci lu dul àjjuma seen julli dina weer waaye bu dee àjjuma ba moom kenn mënu ko julli ak sudaadan waaw mu am ilimaan te ñaar baaqi na lislaam yi ñu wax di imaam ak aw atam mu wala ñu mottali ba tey wax daana ñii kenn kenn bañ ku mu wér ñu bañ a roy ci ci mu jiital royuñu ko lu ñu dul kenn ku nekk julli sa julli bopp wala ñu jiital keneen aw ba ak moom wala lenn ci ñoom julli seen julli bopp ñu ci des wut ñi ñeneen ji aw bi imaamee ni wala ñaari ilimaan mooy bu ñu gañee keneen wëcc fi ki mu jiitaloon te mu nekk dox ñu dañ keneen bi julli bi gën a wér illa jumaata lu dul lu jumaa jumaa nag su fekkee nag ki ñuy jañ ki ñuy def istixlaaf mu dem ci place ilimaan bu continuer julli bi di jiite ba xaraa jàngat na mu ci ay lëwali ke yemukaay ku njëkk ka bu kenn ku njëkk ki ñu doon tari ba aaya jum de jàng kii koy wuutu bu ñëwee foofu lay tàmbalee waaye nga ne ko nag bu fekkente ne déggul jàng yi dafay julli tisbaar la takkusaan nga xam ne kenn déggul mu ne waxtu daa tàmbaleet na sirriya si ci julli bi di ko lu yelu boo xam ne dañ ko yelu in lam ya'lam ni lim xamul wala wala ay ji njëkk jëpp ne day tàmbali ak saar wa sixatu ak wéram dana amee bi idraaki ma ci jot la nga xam ne am la rukkoo ci la jëkk rukkoo moom julli xanaa wax mu ne wa sixatu bu ay istixlaaf la wax waaw ki nga xam ne amul amul amul raakaakaay kenn du ko wutal mu ni wa illaa su fekkente ne nag léegi jotul lu jiitu rukkoo amul amul rakka moom dafa ñëw fekk mu sukk sukk ci rukkoo bi kooku kon ñu seet dañu salaas ki ngeen julli bi naf si ak boppam rek ku julli di aji wéet ko banaa wala mu jokk julliwu laa ca julli bu njëkk ga ca ilimaan bu njëkk ja maanaam rakka bu njëkk ba ay saalisati wala bu ñetteel ba itam nee na saxaat mu wér waaw jiitu na rukoo bi man kon fekk na taxawaay bi waaw waaw dafa ne wasaxatu bi idraak maa qabla rukoo fekkee na ñoo ne bi muy kàppar fekk na waa ji rukoo bi man taxaw na ànd naa moom rukoo bi kon moom am na am na rakka mun na nag su fekkee ne fekkul fekk na nit ki siggi ci rukoo moom dootu mën a dootu du ko mën a wutal bu ko defee kon nag benn mu julli rek xam nga dafa dafa jaxase ba mu ne ndax da ngay daal defe ne mu ngi continuer ci ki nga xam ne mënul a julli mënul a jiite mënul a kenn mënu koo wutal mu jiite ba tey nga insal na si salaat moom kat wala bi ne ala salaat saxaat salaatu aw banaa ala salaati limaami zannan minhu sixata istixlaafihi wa kaana binaahu bi rakati lula bi xaysu law wajada law wajada imaama qaraa baada alfatihati atamaha wa atama alfatihati qaraa wa suuratu wa suuratu wa qaraa wa huwa biduuni qiraati saxat salaatuhu wa fihi bitaawiil mu de dañoo nangoo ne dafa taawil rek waaye jigleem maanaam istixlaafam warul woon a wér waaye nag moom dafa jàpp ne ci taawilam rakka bu njëkk ba fekkiwul woon rukoo bi waaye dafa jàpp ne kon mën naa continuer rek gannaaw def nañ istixlaaf te muy taxawoon ci maamu mi te moom lay ilimaan ji xëcc noonu mu taawile ne kon mën naa jokk ca rakka bu njëkk ba maanaam mu continuer bu fekkente ne kon xam na ni moom rakka boobu gannaaw fekk na mu fasu du ko am ñu def ko istixlaaf nag xam nga ilimaan xëy na ñu ngi ci gannaawam xamul woon ne ci waxtu sàngam la ñëw fekk na ko wala fekk wuru ko nee na du leen gën a wér ay saalisata wala mu jokk ca rakkaam ñetteel ba nga xam ne ñu di tisbaar la wala takkusaan wala gee xam nga ne kon bu fekkee ne si ñetteel bi dana jàng fàtte ak saar ci ñetteelu rakka bi kon bu fekkente ñetteelu rakka bi bu fekkente ne dafa jokk ca ñaareel ba xam nga ñetteel bi lay julli kon ak ñoom mu gàttal di ci faatiha rek naka naka naka ñi nga xam ne noonu la ilimaan ji waroon a def dégg na loolu de ñoo ko njëkk a matal mu mel ne bu bu tardé woon ñaari rakka rek bu jógee jàng faatiha ak saar
maanaam sëlma bi ñu ngi ñu xamee ne pare na ñoom ñu daan sëlma ñoom ñu ñu ñu.
maanaam ni ñuy xamee ne.
maanaam moo leen di sëlma.
xam nga bu moo leen di sëlma la laa dina xam.
ah waaw xam nga ñoom buñ matalee rek. xam nañ ñoom matal nañu. dañuy toog. waaw waxaat ko bu matalee moom rek bu ne asalaamaaleykum ñu ne asalaamaaleykum.
comme ça peut être ñu fekk waa ji di dund.
waaw kay waaw. ndax bu fekkee ne musaafir bi dañu sib musaafir bi wàññi mu jiite kuy matal naka noonu lañ sibee kuy matal mu jiite musaafir buy wàññi waaye ci biir gi ñu sib ki war a wàññi roy ci kuy matal moo ci biir googu moo gën a foor ci biir gëléem ba tax na dañ koy forcer mu matal moom musaafir te du sujjóot dégg nga mu ni wa illaa su fekkee nag jokkul ca bàkkaa bu njëkk ba ak julli bu mu mën a doon te kon mooy dafa jokk ca aji ñaareel ja dégg nga wala mu jokk ci ñetteel rakkaa ci julli timis naka noonu mu jokk ci ñeenteelu rakka ci julli goo xam ne ñeenti rakka la dafa julleem bu wér ñu bokkuñ julleem bu wér masalan léegi ñu ngi julli tisbaar wala gee ñu am ñetti rakka ba ci ñeenteelu rakka bi mu dikk fekk ilimaan si gina ci rukkoo bi mu ànd ak ñoom bu continuer jokk julleem du mat du baax julleem du wér comprendre lu nañ ko ah day tàmbali waat day tàmbali waat.
day tàmbaliwaat dégg nga mu ne xam nga dafa ne waaw aw saasi saxat wa illaa su fekkente ne dafa euh, sosul ci ñaar maanaam dafa sosul ci maanaam dafa sosul ci ñetteel mu ne ko am ñaari rakka dégg nga wala ci aji ñaareel wala rakka bu njëkk ba mu sos ci maanaam mu jokk ci beneen rakka muy seen ñaareel te kon mooy mu sos ci ñaar mu sos ci ñaar wala si ñett maanaam moom daal bu sosee ci ñett ñetteelu rakka fekk na ñoo am ñaari rakka wala mu sos ci bu njëkk ba fekk na amaguñu dara ñaar yooyu yëpp wér na bu fekkee nag dafa ñëw fekk julli timis la mu sas ci ñetteel wala julli ñeent mu sas ca ñeenteel ba du wér wala julli suba ci ñaareel ba.
waaw wala julli suba ca ñaareel bu ngoog ba tey benn mais dina am nga ne lu mbooloo. ndax dina am nga ne lu.
déedéet déedéet du ko am te julleem di yàqu
kon day xaar ñu pare mu julli.
moom kay du ci yëgagu dara waaye bu noppee dañ naan ko julliwaatal ndax moom jàpp na ne dana wér
waaw.
moom jàpp na ne wér na waaw kañ boobaa am na boobu rakka te moom dañ koy compter moom benn problème daal. mu mel ne ku doon dabe rek noonu lay léegi waxtu wu matalee daal te julli bi wér ñoom dañ koy xaar mu sël mu mottali sëlmal moom dafa war a mottali ndax rawane bu dee rakka bu njëkk ba la nag mu fekkee ko kooba moom amul problème.
xaaral bi ñu ko def istiqlaal.
waaw waaw dañ ko def istifaar ndax bu dee su fekkee kuy dabe rek moom dima moom moom moom problème bi jàngoon nañ ko parce que kooku moom ilimaan bi muy remplacé moom du ilimaanam sax par ndax fekkewu ca dara.
fekki wu ca dara fekkewu ñaari raaka ñeent ñaareel la ñëw. ñetteel ba ñetteel la ñëw.
ñetteel la ñëw loolu la mu kooku mu def istiqlaal.
déedéet mënuñu ko def ndax julli bu wér.
waaw déedéet du maanaam.
wér waaw kon fii kon atte yi ñu doon indi mooy atte julli gu wér gi mën a tax daal nga mën a def istiqlaal.
waaw ñu ñu mën laa def ñu sax la waaw kay.
mu nirale ci ñàkk wérub ilim ñàkk wérub julli gi mu ne ka awdi yi ka awdi limaam yi naka dellu si limaam li itmaami xaar ngir mottali dégg nga ilimaan ji bi muy dem xam nga wax nañ ilimaan joo xam ne dafa jàppoon ne comme ndox mi jege na mën na raxas boreem dellu siwaat te du dëgg sobe du génne jaar du weesu ndox mu jege dem ci mu sori te fi ndox mu nekk jege na itam eh, mu raxas bañ a dudd eh, xibla ci lu dul coobareem dellu siwaat ci lu gaaw nga xam ne kon foofu dana mën a jokk julleem yàquwul day continuer mottali rek loolu nag tax mu dal di leen di junj ne leen ngeen xaar ma mu nga mooy masala bi noonu weesu woon dafa mel ne dafa caa delluwaat jokkaat mu ne ci ñàkk nga wér xam nga ne woon na ilimaan ji du leen junj mu ne ka aw di limaam yi naka dellu si limaam li nga gannaaw bi ngantam dañee li itmaamiha ngir mottali julli gi ngir nekkati imaam mottali julli gi bu ñu reyee ci moom seen julli yàqu moo tax du leen ne du leen junj ne leen ngeen xaar ñu ko dellu si ndax moom léegi moom borom ngànt la bien que moom mën na mottali julleem bu fekkee ne sart yi ñu waxoon léegi matale na ko mën na mottali julleem waaye nag dootu mën a nekk ci ilimaan mu niral nag ci yàqu bi nga xam ne moom ak julleem akuk sax ñoom ñi ko roy ñëpp seen julli dina yàqu mu ne ka aw di limaam nekk dellu si limaam di imaam yaa ngir mottali julli bi nga xam ne moom la fa bawoon bi mu amee ngànt mu ne wa in jaa nga ne ko noonu la luy atte mu ne wa in jaa ndem dellu si ne moom ilimaan baadal usri te gannaaw ba ngànt la dañee fukk aj na bi yin jàmbur mu mel ne beneen waaye la boo xam ne mosula jiite fii bu mel ne daal jàmbur la maanaam amul ci affaire yi daal du affaire dara ci dara mu ni wa jalasa jekkat na li salaamihi ba ca sëlmal ba kuy jekki almasbuuqu bu ñu raw ba ca sëlmalu ilimaan dégg nga day toog ba ilimaanam sëlmal su fekkente ne ki ñu wutaloon la fi fekk sëlmalee ki ñu rawoon jóg moom itam fay la ko jiitu woon la ko ilimaan rawe woon waaye du bàyyi ilimaan ji mu toog moom mu jóg de comprendre ngeen waa ji dafa ñëw fekk ilimaan ji jiite ba dellu seen islam bu baax ba dem ñu wutal keneen moom raw nañ ko xam nga ne bu fekkente ne léegi ci misaal bu waa ji ki ñu jiital ñaar rakka rawe nañ ko moom mu ñëw ci ñetteelu rakka maanaam ki ñu wutal waaw
mu ñëw ci ñetteelu rakka bi xam nga ne moom du waa maamum yi buñ matalee ñoom àndoon nañu ak ilimaan ji njëkk ga ñaar rakka ilimaan ji dana dese ñaar rakka moom dana dese ñetti rakka léegi ilimaan jooju bu mu ànd ak moom bu fayee ñaar rakkaam ñooñu moom moom mooy jiitu moom mooy jiitu dañ ko rawoon mu jiitu loolu mu war a sëlmal moom mu matal maanaam moom la ñu raay woon ñaar rakka ilimaan ji ñu jiital ñu rawe ko ñetti rakka mustaxlaf bi wala moom eh, ñu rawe dégg nga kee benn rakka moom ñu rawe Ñaar ko rakka.
ilimaan ji ñu rawe ko ñaar rakka ilimaan ji ñu jumuti ci léegi bu jeexalee te ilimaan ji jeexalul du sëlmal day toog di ko xaar ba mu sëlmal mu soog a sëlmal mu ngi xaw a demee ne li ma leen di wax rek ne dañuy toog di ko xaar ndax ilimaan doo ko njëkk a sëlmal ci benn anam kon ñaar ñu tardé ci kenn ci nekk ci li ma mustaxlaf ci des waaw di di mustaxlaf di imam sana imaman saniya ku ci def daal di moom nekk di imaam moom moo xam ne moo ëppale ci julli gi mustaxlaf léegi mu matal du- du sëlmal dem day xaar imaam ji ba mu sëlmal mu soog a sëlmal mais wa jala sa jekkeet na lislaam yi ba ci sëlmalu imaam bi albas boo ku ñu raw ki mu ñu nirale ci ba tey mu ni ko an subiqa naka bu rawe bu rawee fat ko woo moom dégg nga moom ilimaan moom mustaxlaf moomu dégg nga yéen tax doon salaamul xalifatul masbuuq ñu sallimuuna aqabahu illa batilat salaatuhum mooy loolu moom ba tey daanaka duggaale nañ ci masala nii nu misaal léegi ki ñu def istax mustaxlaf euh, dañ koo raayoon rakka xam nga maamu mi yee koy njëkk a jeexal maamu yi dañuy jekki moom ba mu matal sëlmal boobu mooy ku am na am na ku ko laajoon ne moom misaaloon naa ku am na maanaam euh, maamu yi ñoo jiitoo rakka mustaxlaf bi maanaam ki ñu wutal léegi kii bu ñu matalee ñoom ñu ki ñu wutal moom mataleguñ tax rawal nañ ko rak dañuy toog di ko xaar ba mu sëlmal mooy kan subak nag bu jiitee fa ko moom mustaxlaf bi waaye laal muqiimu bi ca diine aji sax moo mooy ku tukkiwul koo xam ne kii day matal julleem yastaxlif koo koo xam ne dana wutal ko musaafirun ilimaan joo xam ne aji wàññi la julleem dégg nga al muqiim mooy ki nga xam ne julli tukkiwul mu ngi ci dëkk bi mu nekk kon day matal julleem dégg nga maa moom mi kooku moom du toog di ko muñal ba mu sërmal xam nga ne muqim mi léegi buñ ne tey dañuy julli tisbaar wala takkusaan wala géem war a julli moom ñeenti rakkaa yi mat sëkk limaan ji nekk musaafir muqi ñi mu ñi mu jiitu ñi mu jiitu ay muqim la ci ay musaafir lañ maanaam ñi matal ak ñuy wàññi gannaaw dañu ne woon sib nañ ko ci jël gu far mu ne loolu moo tax mu ne mu teg ci ne li tax azuri ngir gàttal xam nga buñ ko nee rek yow lu tax loolu ñu sib ko ba noppi nga di ko supposé mu ne nag li tax azuri musaafirin ngir eh, gànt gàntu la musaafir ci tukki aw jahlihi wala ak réeréem kooku nga ne ko nu mu def mu ne fayu sallimu kon dana sëlmal al musaafiru musaafir ma te du nekk kii bi imaam ji nga xam ne dégg nga moom mustaxlaf la dé ki ko ki ko ki ko def istixlaaf woon musaafir la
waaye moom muqim moom muqim la mooy mooy lal muqim muqim moomu moom xam ne musaafir a ko xëcc mu war a taxawee place am te musaafir bi mu ngi jiite woon ay muqim ak musaafir waruñu ko woon a waru ko woon a jiital waaye ngir ngànt la dañu ko def dañu mënul a julli wala mënul a kii waaw kooku kenn ko forcé ndax coobare wu moom topp mu- musaafir bu topp mu mu xiir ci coobareem
waaw ci coobareem maanaam xam nga sib nañ ko. aleykum salaam wa
imaam bi musaafir musaafir la waaw imaam bu njëkk bi.
waaw musaafir léegi ki mu def ki mu ki mu wétal ki mu xëcc moom muqim muqim la.
Léegi- seen gannaaw ay muqim a ngi si ak i musaafir waaw.
waaw léegi nag bu bu kooku mu matal muqim moom mu ngi ko wutal su maamum yi matal yi ku ci matal da ngay sëñ waaw duñ ko xaar. waaw ndax moom muqim la te ñoom ñuy musaafir. dañ dañ koy njëkk a matal te euh, jéng jéngatu leen. ndax mustaxlaf la. mu ne fay sàlli mu dee sëlmal kon al musaafir musaafir bi wa yaqumu jóg xayruhu keneen ku dul musaafir ilil qadaai ñu nga ngir fay lu ko ëllëg wayn jaale ndëm réere na kalaf masàlla la mu julli asaara mu junj day laaj fa asaara ñu junj dañ koy ubbee ba bu jullee ba ak mu ne waa man ci ñett rakka laa nekk wala ñeent wala muy taayee man matal naa wala dese naa ab rakk mu ne nii ñu ne ko nii dal di jóg ñaar rakka la am matal ñaar rakka am ah si am naa ni daal ak ak benn ñaar
dafa nag moom imaam bi jiital waaw dafay mu mu mën ko jiw mu mu koy defee bu mën bu mën a xam mën nañ ko mën nañ koo junj mën nañ koo junj xam nga il- iltifaat dañ koo sib rek waaye yàqul julli mën na ni nii surtout nag bu dee ci lu yéwénal julli gi la kenn dootu ko sib sax
limaan bi moom moo sar moom moo warul wax ak maamu nii wala maamu nii ñoom seen bopp ñu doon wax ak limaan bi ci gannaaw ñi ci gannaaw moom ñu ko wax su fekkee di wax ji day defar dund ci wax ji bu fekkente ne dafa yokk wala dafa wàññi ñoom dañ nañ ko subhanallah moom nag bu fekkee ne moom moo moo sikki sàkka te bu sëlmalee julli gi yàqu julleem yàqu seen julli yàqu dégg nga moom ci boppam day laaj léegi su fekkonte ne nag dafa dal di jóg rek bëgg a mottali pour dana seet ne bu fekkee ne eh, mataloon na daañu ko ne subhanallah te kon mu toogaat mën na loolu léegi defu ko dafa amul jaaxle daal xamatu lu muy def mu daal ne nii
ñi ci gannaaw est ce que moom ñoom mën nañ koo au lieu que ñu junj ko ñoom it ñu wax ak moom rek ñu ko Ah.
matala boo foofu dañoo war a junj buy sëlmaloon mu laaj dañuy wax ak moom.
mën na ñëw jàpp si baaraam ba waaw mën nañ ko junj rek la waaw waaw.
parce que laaj bi dama def noonu ci biir julli ji même soo sëlmalu mën ngaa laaj kon da ngay sëlmal far soo ko laaj waaw xam nga fi mu nekk junj gi mu wax ñàkk a mën a wax a tax xam nga ñetti masala la bu fekkee ne bu muy sikki sàkk dafa sëlmal moom julleem yàqu na seen julli yàqu wa in sallama shakkan fi kamali salaati batalat salaatu bu fekkente ne dafa jóg di yokk ñu ne ko subhanallah mu toog xam ne matal na wala mu laaj ci junj ñu tontu ko ci junj ne ko matal nga benn ñu ne ko nii ñetti rakka nga am wala mat na nii wala ñu ne ko nii ñoo suba ca kanam ñu ko nii comme comme jëf ji bëriwul du xëy waaw dégg nga wa illa fekkee ne laajtewul wala dañ koo kii te xamul dañ koo junjal te comprendre lul su bi xasabaalee fat bi ci moom dégg nga wa in qaala ne wax na moom imam ji bil masbuuq ñeel ki ñu jiitu kii man de waaye as ak rotal naa rukoon ab rukoo amee la mu jëfee alli ci loola kuy jëfe ca loola man ka nga xam ne la muy alam xamul xilaafa koo wuuteeg li waa ji wax waa ji dafa julli juróomi rakka ñu ne ko lu mu doon mu ne dama ratal benn rakka ku mu leer ne nag rakka bi mu jàpp ne ratal na ko ratul maanaam rakka bi mu jàpp ne yàqu na yàquwul doo ko topp fekkee ne yow am nga ñeent rakka mu wóor la ne ñeent rakka yi amu ci benn bu rot tax amu ci benn boo xam ne def na ci lu waral yàq rakka yow doo jóg ngay toog mu taay
léegi su fekkee ne ci biir wax xëy na daf cee faatiha bu mu waroon bu mu waroon bu mu bu mu yellu waaw kooku war na ko gërëm fàtte na ko ci biir fatiha bu mu waroon a yelu
muy julli yellu waaw mu tëb rek jàng saat bi waaw fàtte ma ci fàtte fàtte fàtte faatiha bi waaw loolu saat bi ba ba rukkoo
mu fasi mu fas waaw.
rakk boobu dafay wàcc waaw boobu daf ko wut kon léegi su fekkee ne juróomeel na rakk boobu mën na bokk ca ba mu bàyyi woon waaw moom mooy remplace kooku nag mooy li mu li mu wax moom ma astaptro rakkaatan moom dafa wane ne am na rakka bu yàqu moo tax mu matal juróom ki nga xam ne moom leer na ko ne dafa juum rek waaye benn rakka yàquwul ñu ngi tey buñ doon julli tisbaar ak julli timis wala gee mu dégg ko mu biral jàng fàtte ak saar matal rukkoo yi matal sujjóot yi yëpp mu leer ko ne moom benn rakka bu yàqu amu ci kooku bu jógee doo jóg bu mottali doo jóg yow tax wóor na la foofu bu demoon mënu ñu jàll. léegi ki nga xam ne dafa sikki sàkk. ci ni par exemple ci jàkk rakam bu njëkk. bu sikki sàkk ni eh, jàng na Faatiha.
waaw doo sikki rek. ndax eh, kii am ci lu ko leer. ndax mënul jëfandikoo àtte bi wax ni. eh, Faatiha mi ngi war rek ci yëpp ci julli gi.
ah waaye xam nga euh, koo xam ne kii nekkuloo mujtahid mutlaq rek wala xutbul xaw si da ngay da ngay tënk ci ngir te bu fekkee ne tënk nga ci ngir ni lii ngir mi wax rek ci ngay jëfandikoo moom ngay jëfandikoo su fekkente ne nag ngir mi itam am na ay wuute ndax euh, mujtahid mutlaq mi toujours mu am ay mujtahid muqayyad yu nekk ci biir ngiram di ci masalan su ñëwee imam Malik na sax noonu na ibnu Qasim ak ak kii Abdul Aziz ñëw nga ñun ñëpp ñu bari ay mu tey lañu ba si ñu mujj ñoom ibnu Rushd la xam ni ila axiri ila axirihi ñooñu bu fekkente ne si ñoom ñoo am lu ñu wuteeg mu mu mu tey bu mag bi ku ca mën nañ caa jaar ca jaar it mu ngi mel na nga jaar ci waxi kee
wóorul ne dafa dolli moom dafa jàpp ne ilimaan ji dafa juum waaye itam wóoru ko nag mënu la waat ne dafa juum mu ne kooku wasajada sujjootat na qablahu ci la njëkk sëlmal bi maanaam qabla salaam lay lay sëlmal ndax mën na am fekk na dara wàññi ko na ci waxtu bi salaatu salaam te li ci mën a wàññeeku xam na gën a mën a nekk faat waaw waaw waaw waaw mën na nekk fekkee ndax mën na yelu maanaam moom lu mu gën a gëm ñaari njort la xam nga njort am na ci ñun dafa am wann gannaaw yàqin am na wann am na wax mu bu fekkee ne wann xam nga moo gën a dëgër wax mu wann bi nag ci njortal ilimaan la nekk ci nja njuumtal ilimaan pour ne ilimaan wax na dëgg dafa root am raaka wax mu la ci am kon xam nga sànnam moo gën a dëgër
jeex na jeex na ana ana borom maqaam ñëwoon ba tey de.